salaamaaleykum mbokk yi seetaan Hann TV yegg si nañu fii ci terrain yaraax école de lutte Mbiita Ndiaye fekk fii mbër bi nga xam ne moo war a bëre le 8 dimanche le 8 mars fële ca arène national muy Weuz jàmbaar mi nga xam ni moo war a dajeek Kogna numéro 2. gaa ñi mbokk yi balaa ma xuus si waxtaan wi dama bëgg ñu seetaan entraînement am ak ni muy waajalee combat am ñu soog a dugg ci waxtaan wi gaa yi borom faraaf yegg si na ak Hann TV ñëw la ñu seetaan.

mbokk yi comme ni ma leen ko waxee woon dañuy xuus tuuti seetaan ngeen bàkk seetaan entraînement Weuz jàmbaar léegi nag dañuy xuus si waxtaan wi tuuti Weuz maa ngi lay nuyu. auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw bi ma sant yàlla julli si yoonante bi di sant sama ñaari waajur baax sant sama baax baax di nuyu bépp kilifa diine boo xamante ne nii yaa ngi nekk fii Sénégal muy ngay dund muy nga di nuyu ah, chrétiens yi. suñu mbokku chrétiens yi di nuyu axlu bi yëpp képp koo xamante ni daal nit nga yàlla sàq la nga am kii nopp rek wala lay ziar bu baax di la sargal waaw di nuyu waay Yaraax gi yëpp di ko dalee Kasanka képp endroit jaara waali mbaxal waali daan sanci Maga daan cafétéria xam nga Maris Cité Dalifort ba Seras bàyyiwuma kenn kenn kenn muy montagne montagne six ferraille di nuyu ñëpp di leen ziar waaw di nuyu ñëpp aduna di nuyu sama waa dëkk waa ngaay mexe ay sa yi fa nekk yëpp di leen nuyu bu baax a baax waa àndal ci borom jakarta yi xam nga borom kalando yi ñoom Pape Fall waa kër Baye malik Fall yëpp di leen ziar bu baax a baax a baax di nuyu mensuel spécial à Pablo Fall waaw jël naa nuyu bi te ko ci loxo waa ngaay gi yëpp Weuz ngay bëre combat bi nga xam ne moom mooy le 8 mars te James production tëgg ko nan ngay waajee combat waaw xëy na combat bi comme ni ñuy waajale yeneen combat yi rek lañ koy waajalee comme mbër bu ndaw ni ñu préparé combat rek ndax mën naa ni préparation bi méttiwul sax ndax fekk nañu ñu nekk si entraînement comme li ñuy wax rek naan mbër bu ndaw warul préparé heure bu ñu ko fëggee dafa war a fekk mu pare xam nga yàlla dogal na avant ñuy wax waxi combat sax ñun fekk nañ ñuy entraînement lu métti billaahi li ñu doon entraîné avant ñuy jël combat sax nii presque doon wàññi sax xam nga xam ni ñun liñ doon liggéey am nañ ko bu yàgg yàgg bi ay ay détails yu ndaw lañuy ñuy defar nii rek waaw. Weuz nga am làmb ak ki nga xam ni moom mooy Kogna numéro 2 Weuz ndax xam nga sa adversaire. waaw champion la dama koy nangul ndax su doonoon champion du ma ko jël quoi champion la ndaanaan la wax dëgg yàlla ndax su defoonul dara si làmb du ma ko naan du ko jël xam nga wala kenn du ko coow si làmb làmb ku dem la rek si làmb xëy xam nga def na dara adversaire la comme ñëpp mais du adversaire boo xamante ni bu ma yem la ndax Weuz Diambar su demee bañ koy jox ay Konia 2 mu ni combat bi mu ni adversaire bi da koo jaaxal kon su yowoo mu tekki ngembam sànni biir géej ndax man xam naa li si kanam ñooñu ñoo gën a wex ñoo ko ëpp doole ñoo ko dàq bëre ñoo ko ëpp doole fi ma teg yi sama bët. mais Weuz booy bi saay saay la. loolu moom fii ku nekk maanaam ku ñeme ba tax ngemb rek ah liggéey bii ngay liggéey bii ngay liggéey yàlla am na loo xamante ni may na la ko si xam nga jour bi li muy football lu mu tële tële am na lu ko yàlla dénk xam nga mbër mi moom tamit lu mbër lu mu tële tële am na loo xamante ni yàlla dénk na la ko war nga ko mën waaw loolu la rek. dama seetaan sa signature nga mel ni ku ragal booy bi. du ragal gars yi dañuy jaawale tey ak ragal waaw ñun dañoo ñëw suñu père vieux sec xam nga dalloo ñu waaye raak yëpp ñun ni santuñu la wax sooy dem bay télé bay wax waxal loo xam ne lu am importance la xam nga. nga ànd ak dal jox ko cër xam nga jox ñafa nekk cër loolu la wona ah mais lu may ragal ci ci koña de amul dara lu may ragal ci mom wala lu may ci si mom wax deug yàlla. woz ñu ngi jëm ci combat bi nga xam ni combat bu reuy nga joggé bi lamb ji passé nga am ci defet nga ñëwaat wara bëre avant ak dernier combat nan nga jàngatee sa combat bi njëkk bi nga xam yow daaw bëre nga euh, combat grand combat ren nga wëlbatiku bëre li nga xam ne avant dernier combat noo gisee sa plan sa carrière ci foofu côté boobu. gis nga man dama jàpp ni bii mooy sama premier combat ci làmb parce que dama décidé woon ni li nekk sama ginnaaw su may woo du ko wuyu ndax amul benn nouvelle boo xam ne damay teg suñu temps bu baax a baax si wàllu làmb am nañ si ay jàngat yu bare bare bare bare yoo xamante ni jëlee nañ ko si xam li nga xamante ni mooy défaite yuñ jóge maanaam defet su ñëwee rek jëlewoo si ay jàngat xam nga su boobaa ay loraange la lay dikka mais su fekkee defet dafa ñëw nga jël si loo xamante ni lii njariñ la am loo si jàng defet boobu noonu ak cant nga ko war a jàppee xam ni jàngat la waaw moo war a defet moo jógee am naa ay jàngat yu bare bare bare jële naa ko si tax sant sant yàlla est-ce que jàppoo ne am na amul lu mu def si sa plan carrière daaw nga yéeg ren ñu gis la nga bëriwaat beneen combat boo moo gën a suufee bëgg daaw amul mu jàng def ci yow quoi jàpp naa ni loolu su amoon sama carrière bu baax waaw parce que maanaam li ma li ma jot xam nii ci làmb xam nga ak cër bi ma jox mii làmb xëy na loolu su amoon naam du ma ko jox xam nga loolu moo waral ins bii nii ma jox cër làmb xam nga respecté ko bu baax a baax a baax a baax xam nga yoonu yoonu ndaw yooyu mënu see ñàkk xam nga di ñaan yaa alhamdulilah ba ñu teelee dal ndax mënoon nañ dem ba si kanam mu dal ñu mais fi ñu dalee nii dañoo sant yàlla bu baax xam nañ fu ñuy teg suñu tànk bu baax baax xam nga maanaam si wàllu làmb daal Weuz Diambar mature na si bu baax mais dégg naa ne Kogna mu ne yow mënoo dóor mënoo xeex waaw man mënuma dara wax dëgg yàlla waaw mais am na lu ma yàlla dénk Weuz yow tam da ñu tam dañu dañu bëgg nga wax ñu yàgg Kogna foog nga foog ñu nga ñamal ñu ci lu baax parce que Kogna moom dafa taxaw mu ne yow mii ah bu la jàppee nga xam ni làmb jeex na xëy na nan yónni yàgg rek yàgg moom soo ko yónnee su ñëw dina indi résultat li wit yàggatu léegi nag wës dafa fu ma bëgg ñu dem maag yow xam nga mooy fan mooy que ni euh, dama doon ñëw fii di la seet si fekk supporter fees fi del del mais ren ma ñëw gisuma supporter qu'est-ce qu'il y a waaw xëy na loo gis rek am na lu ko waral xëy na combat bi prépare combat bu nekk ak ñu koy préparé xëy na man bi ngeen may woo nii sax dama génnoon xëy na moo tax ñu bari bi nga ñëwee fekkoo leen fi dama génnoon si oto bi laa wàccee vite fait continuer nii ñëw continuer si ñëw xam nga gars yi ñu ngi koy préparé ku dugg biir yaraax dugg fépp di nga xam ne combat bi waa yaraax ñu ngi koy préparé bu baax a baax foo tourné yaa ngi gis traag yi waaw su jour ba li nga xam ne waa yaraax di pare ñoo ngi préparé combat bi bu baax a baax billaay wallaay gars yi ñoo ngi koy pare bu baax a baax a baax a baax man xam naa si dara waaw ñoom ñooy mën naa ni samay supporters ñooñu làmb boolewuñu xam nga ku la làmbul boolewul muy defee muy victoire du tax ñu bàyyi ko man ñun ñëpp ñoo fowandoo ñoo maagandoo suñu taxawee si tërëwuñu ku si nekk mën naa la wax turam wax nga turam wax nga turam moo ñu boole exemple ñoom su nekkee si leen muy fubali wala dara damay dem supporter leen man si li ma yëngu dañuy ñëw supporter ma ku si nekk muy taay kondo bi muy karaate kaa xam nga ku si nekk wala kenn am si xew xam nga ñëpp waa Yaraax yëpp dañuy bàyyi ko yow doomu Yaraax nga xam nga li ma la wax xam nga doomu yaraax deret deret day sot xam nga même duñ la mën a jàppal soo soo amee bés ñëpp dañuy bàyyi leen doon def ñëw taxaw la billaahi ku si am ngénte wala wala xew wala lii ñoom ñëpp ku si amoon sa liggéey danga koy bàyyi dem teewal ko man nag lii mooy sama bés xëy na mooy sama mooy sama xewle moo tax ñëpp dañuy ñëw dañuy bàyyi seen affaire ñëw jàppale moom Weuz tey gis nañ ci mbër yu sa wet ñu ngi

mu ngi noonu père yi fi nekk entraîneur yi père Vieux Seck xam nga ay père euh, père Mafal ñoom ñëpp ñoo ngi nii am na leneen lu ñu war a defi mais dama bàyyi seen yiite yëpp ñëw taxaw fii muy nduur nduur bi nduur bu soog waa xam nga billaahi heure boo ñëwee même bëri suñ ñëwul da nga leen di fekk fii ñu taxaw xam nga ñëw pour ëppale wuñu ñu jàppale ñi amuñu seen fay quoi xam nga lan leen mën a fay ñu am combat yàlla may ñu ndam ñoom loolu rek lañu soxla suñu. d'accord Weuz lan ngay wax waa waaw di wax waa yaraax waa yaraax moom xam nga ñoom moom di leen wax seen doom mooy préparer combat boo xamante ni da soxla combat boo xamante yi nii dafa daa am lu muy joué lu bëree bare bëri si carrière dafa am lu muy joué tamit si si dëkk bi mu yaraax xam nga Weuz Diambar su génnee dañ naan doomu yaraax bi kon savaan su amee même soo dëkkee yaraax keneen dinañ la wax sa mbër mi xam nga kon man drapeau yaraax laay génnee drapeau yaraax laay génnee sama dëkk bi ngaay mel ñaari drapeau xam nga kon képp koo xamante ni deretu yaraax moo ngi daw sa biir sa biir traite xam nga war nga ñëw génn jàpp si bu baax a baax ñëpp lan woo ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñi ñi am doole poos nañ ñëw jàpp si ñi am ñi am xam-xam boo xamante nii su ñaan ndax xamuñu ban jéemee na barke na ñëpp ñaan muy maire pa ñëpp ñëpp ñëpp nañ ñëw ñaan ñaanal seen doom si la 8 mars ci kaw Kogna doo ñu koy wax Abdoulahat Faye yàlla may man ndam ndam bu rëy bu leer nañ ci kawam waaw loolu laay ñaan yàlla ñëpp nañ génn en masse préparé xam nga Azico yi génn open press bi mercredi bii di ñëw la mercredi bu suba bi bis topp en trois kappa foofu lañ koy defee na garab yi waaw na gars yëpp teew si open press bi di woo waa Yaraax yëpp cat ba cat bàyyiwuma kenn na ñëpp teew en xam nga ñoom jàpp si mu gën a dëgër waaw Yaraax jël pay. looy tàggatoo. waaw di tàggatoo si baatu alhamdulilahi rabbil alamin ndax di wax tamit kàddu yi ñu yëkkati su

nit ki jugé ko yow nekkul nga ko bëgg xel moom dafa dafa dafa dafa positivement mais lépp lu wax rek xam nga positivement lañ koy xam nga di ñaan Sénégal di ñaanal di ñaanal ñu tëdd si yeneen dëkk yi yàlla. Ah, coronavirus coronavirus non ëpp naa wax sax. <laughs> loolu kay ñu waxal tur bi tur bi coronavirus. man kay dama koy bañ a wax sax gars yi mooy loolu xam nga coronavirus non man bokkuma ak mbër yoo xamante ni mooy loolu de. j'ai fait <laughs> bi di ñaan yàlla yàlla ñu si yàlla musal yàlla ñu si dégg rek doy xam nga di ñaanal dëkk yi nekk yàlla na leen ko yàlla teggil xam nga ba ba ñu delluwaat seen Hann TV loolu moom saa yi liggéey boo xamante ne képp kuy yaraax war si fier ndax xam nga ay doomu yaraax lan ñu ñëw pour sigil gox bi muy ay jël gox bi tuddee ko aan xam nga di si di feeñal lépp loo xamante ni dafa nëbbu ci biir gox bi ñu génnee ko di ko fësal xam nga ñeneen ñi di ko mën a gis pour yëkkati seen gox lii nii ñëpp suñ ko defee gëm naa ni gox bi dina dépassé fii mu nekk quoi ne si ñëpp jàpp ku nekk fi nga mën a jàppee rek di leen wax képp koo xamante ni seetaan nga en TV nga bës abonné si suuf nga ne ko taj abonné kolos baa ngi si kaw nga bës kolos bi lépp lu ñu dugal pour waa yaraax di nga ko seetaan dara du la si ump waaw di leen wax si gi leen si kaw ñu leen seet. jërëjëf ok gars yi comme yéen a ko gisandoo Omar borom frab yegg si na Hann TV doon ñëwoon fii ngir indil leen ki nga xam ne moom mooy Weuz Diambar muy mbër bi nga xam ne moo war a bëre le 8 mars fële ak ki nga xam ne moom mooy Konia numéro 2. fële ci nga xam ne moom mooy arène nationale kon gaañ yéen a ko dégg seetaan ngeen li nga xam ni moom mooy entraînement seetaan li nga xam ne moom mooy ay bàkkam ba pare waxtaan nañu xam nañ ci moom lu bëri kon yéen waa Yaraax seen doom a ngi nii waa Sénégal seen doom a ngi nii mani Hann TV ak Yaraax Hann TV ak Sénégal Hann TV ak àdduna ca kaw ca kanam kon gars yi ma beneen yoon ci beneen émission ak beneen mbër eh